ci chaîne bi di Baba Show ak eSport TV dañuy waxtaanee Cheikh Meng li nga xam nak néna na Aliou Cissé moom dafa am ay limite do entraîneur loolu la daal di wax indi ci ay leer wax également ci né système Aliou Cissé bi dafa compliqué lepp lu ci wax dinañ ci ñew détail ci ak yéen mais aussi gars yi dañ wax né vidéo bi première partie bi la deuxième partie bi nak Cheikh meng wax na ci nga xam mooy jëm ci walum xon ci équipe nationale du Sénégal ak yenn cadre yi nekk ci équipe bi lool nak ci eSport TV ngeen koy fekk gannaaw boo leen seetaanee vidéo bi comme on le dit encore l'actualité c'est toujours en continu jëm nak ci li nga xam ne aussi da gars moy euh, li di actualité bi jaraf de Dakar ñu leen di féliciter wax joyeux anniversaire hein? 55 ans d'existence existence 1969 ba 2024 euh, et aussi équipe boo xamné équipe bu emblématique la man Jaraaf muy Jaraaf di ñaay ah bu Pikine ak également jean Gendarme de Dakar c'était autre chose hein ak wa ais Douanes ay jamono Port mu ngoog ah, nak nekkoon équipe yo xamné mo mu ngoog ñu suivre li nga xam moy championnat yi ci ñun dañoo yag sop daan football ba paré di dem di ko seetaan mais aussi di inviter bokk Sénégalais dem len sétane championnat du Sénégal dem len sétane championnat du Sénégal parce que noonu la ñu mën mais aussi gaay da ngeen di gis ay match yu neex a neex ki nak également. André Larsson ah ñu peut-être bu ñu ko xamul woon ci carrière am gis nañ ko Barça wala boog gis nañ match contre Suède Sénégal Suède <clears throat> moo dugaloon. bii bi nga xamné mo moo ñu naroon xañ ñu dem ci quart de finale yi Henrik Larsson ah. borom rase yi di mu jéggi mu daldi def ndel ki nak di Mohamed Salah du côté de Liverpool hein ah. mom lañu tabu def ku mu nekk seen joueur du mois ah. Salah mais que un joueur emblématique bien a xam une hein, performance avec les Reds de Liverpool l'égyptien maintenant que Sadio Mané est plus grand que ça parce que le Sadio Mané gagné Salah gagné au ko logique pour logique qui euh, a aussi donc qui dit Salah l'a hein. en 318 matchs il a marqué 223 buts gaël on a beau essayer dernières années yi nga du côté de Liverpool Mohamed Salah qui est di Savanova mon le gardien hein. ah rom mun le binôme de qui nga

<laughs> Euh, waa Maroc seen buur bi kaful de pendant ce temps nag ki nga xam ne aussi na gars yi moom mooy kii di donc euh, Florian Wirtz laaj nañ ko ne ko pour yow la actuellement c'est qui le meilleur joueur actuellement nii nii nii mu ne kii di Lamine Yamal nee na ci jeunes yi du seen morom ah, amul morom benn lafi les frères Williams ah ñi di nag Netflix ñoo génn benn euh, documentaire ci ñoom tuddee ko Los Williams démoo nekkoon présentation bi et tout donc Netflix temps yi daal mi def ay film def nañ ci nga mooy donc Di Maria def également yu bëri mais yi muju dal Di Maria la ki di Courtois ak les frères Williams ki nak nga xamne mo mooy Jadon Sancho aujourd'hui titulaire pour la première fois avec ñi nga xamne moy donc les Blues de Chelsea le joueur donc international anglais ñi di wa Manchester Alco Chelsea mu dem fa nak avec option d'achat obligatoire mais mu ngi wane boppam kii nag Adrien Rabiot ki mo xona bu ko Paris Saint-Germain jappé nañ ko kongaan ko kongaan ko kongaan ko moom daal dina bu choisir Marseille daf ko choisir parce que c'est pour le cœur hein, avec le cœur plutôt mais na xol bi daal la topp loolu la wax <laughs> am parisien yi marché du neex derby bi du neex dara pendant ce temps nag euh, kii nag di Lamine Massali un jeune joueur de le ça Sadio Mané dafa promettre de promouvoir Julien, notamment ca goxam boy bi nag dem na ca Bourges foot bi nga xam ne nag Sadio Mané moo ko moom def na fa ay tests réussir test ñu daal di jox premier contrat donc euh, ñu koy souhaiter bonne chance et aussi merci à Sadio Mané de muy promouvoir football bi Cheikh Meng ancien international sénégalais aujourd'hui nekk ci Sénégal doomu Sénégal nag ah moom mu fekkee ne dafay juddoo France Papa Gueye ay Sénégal lañ mu nekk fi teg fi centre formation nee nag Aliou jot na mu ne dafa atteindre ay limitam ne loolu xalaatam la nag moom nee na def na ay résultats yu baax a baax a baax kenn du ko naatable li mu def mais instant yi dafa atteindre ay limitam nee aussi li nga xam ne mooy donc Aliou Cissé du manager la du sélectionneur madame, amagul expérience oui, parce qu'il a raison nee a Aliou Cissé ba mu équipe nationale déjà amul a ay diplôme amul expérience deuxièmement ne Aliou Cissé dafa ñëw fait ay boy yu football troisièmement mu ne Cissé dañ ko yàgg accompagner parce que maa leen ko wax ne leen ki xam mooy Karim Sega moo lancé Aliou Cissé donc aujourd'hui Aliou Cissé bëgg na def na bu am solo mais li ñuy wax rek c'est pas un manager c'est pas un plutôt sélectionneur manager la aussi nee na système Aliou Cissé bi muy teg jamono ji c'est un système très compliqué néanmoins, na en tant que joueur il avait du mal même ba mu nekkee si équipe di ko am maanaam foog nga am xam-xam bi pour mën a système bu ni mel te nee aussi gis na ñu ngi joué Habib Diarra du côté droit nee na waxul ne Habib Diarra mënu ko Aliou Cissé mooy fekkee seen entraînement xëy na moo ne tam ko fay teg mu ne système boobu noonu Sabaly daal Youssouf Sabaly Sabaly moom moo nekk joueur boo xam ne gars moo nekkoon ci pass boobu pass la mais ba malheureusement dafa arrêté carrière donc loolu la wax ne aujourd'hui nag équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé moom mu ne pour mon gis-gisam atteindre na ay limitam système bi dafa compliqué et que aussi si c'est du sélectionneur manager la et que parfois day am ay limitam te loolu dal les amis lii moo nekkoon information ñu leen bëggoon a jox ci li nga xam ne donc ci Baba Show ak Sport TV di jégalu nag nekk ci liggéey bi rek moo mais on va tout de suite vous faire une autre vidéo en attendant ci kanam dem leen léegi ci Sport TV te like gars encore ngeen like abonné Commentez, partagez, parce que l'origine nous m'a dit après, t'as une fille.